sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 barkeel yi jamono yi barkeel yi nu ñuy dund euh, mu tombeek ñu doon fàttaliku sunu jàmbar ja ak Cheikh Mouhamadul Fadil Mbàkke euh, di ñaan yàlla subhanahu wa taala bu baax a baax te ci barkeem di jaay seydi wujur sallallahu alayhi wa di ñaan jëmm jooju ñu doon fàttaliku rek lépp luñ ci def ci ak jaamu yàlla rek yal nañu ko yàlla fulal fajal ñu ci suñu aju zahiran wa batinan di jaay sayyidil wujudi sallallahu wa sallama te lépp lu ñu def ci rëcc rëcc rek yàlla baal ñu ko jéggal ñu ko di jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama di jël ziar boobu rek ak euh, ndokkeel boobu di ko teg ci loxol kilifa gi ak Cheikh Abdul Ahad Mbacké mu jot li ñu ko mbooleem mbokk yi nga xam ni ñoom lañu bokkal liggéey bu sell bii góor ñi ak jigéen ñi boroom xam-xam yeeg teew teewlu ñëpp rek ñoo leen di ziar di ñaan yàlla mën nañoo defal tawfiix ci liggéey bu sell bi ñu yàlla boole bi jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ban gën ci mën a taxaw ngën ji taxawaay gi nga xam ne gi euh, moo la koy mottalil ci kàttan ak yàlla ak yërmandeem ak ndimbalam ak ngëneelam ba liñ ci bëgg rek ci ay xéwal ak i tawféex ak i njariñ yàlla defal ñu ko ci àdduna ak alaaxira di jaay seydna muhammadin sallallahu alayhi wa di leen ziyaar rek di fas yéene tàbbiwaat ci liggéey bu sell bi ñu seq eh, muy fatwa bi eh, di ndokkeel di nuyu mbokk mi nga xam ne mii moo fi yónnee laaj bi tey muy Cheikh Habibullahi gay ñoo ngi koy ndokkeel bu baax a baax ci yëngatu bu am solo boobu mu yëngatu ci xasida Cheikh Ahmad Bamba yi ak euh, bésam bu solo boobu mu doon taxawal ca fële dëkk ba Pékin Ndakaaru di ko ñaanal bu baax a baax yàlla gën koo taxaw gën koo dëgëral ba loolu muy yëngu rek bu àgg ji fu koy njortam ci liggéey xaadim rasul bi jaay saydi bujur sallallahu alayhi wa sallam te ànd ko moom ak mbokki jullit yépp di ko di ko ndokkeel ci liggéey bu am solo boobu muy taxawee mu di di yëngu ci xasidaay maam xaadim rasul yi kon sëñ Habib moo fi indi laaj bu am bi nga xam ne bii moom lañu war a def fatwa tey te muy lu jëm ci wàllu alxuraanul karim li nga xam ne lii moo gën lépp nag moom alxuraanul karim moo gën lépp loo xam ne lii yàlla bind na ko ndax alxuraanul karim maanaam nekkul loo xam ne lii mbindeef la maanaam yàlla bind ko waaye dafa nekk wax yàlla bokk ci melokaan yi nga xam ni moom la yàlla melo kon looloo tax moo gën lépp lu mu mën a doon loolu tax ñu naan alxuraan moo gën sax seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax seydina muhammad dañ koo bind te alxuraanul karim nekkul mbindeef waaye dañ ne wax yàlla la joo xam ne jii maanaam dafa bokk ca melokaan yi nga xam ne yi moom la yàlla meloo bokk ca jëmm yàlla ja kon loolu tax moom alxuraanul karim moo gën lépp loo xam ne lii rek maanaam du moom kon laaj bi nga xam ne bii mooy doon fatwa bi rek te sëñ Xabibu rotal ko fi rek euh, mu jëm ci wàllu alxuraanul karim muy laaj ndax euh, mënees na lakk ay alxuraan mënees na lakk loo xam ne lii lu bokk ci alxuraanul karim la ay aay masalan ñu bind ko euh, lakk ko di ko suuroo ngir fajoo ko ku feebar loolu mooy laaj bi nga xam ne bii moom lay laaj kon loolu muy laaj ne ndax eh, sañes na lakk alxuraan di ko suuroo ngir ku feebar di ko fajoo dañ ko naan eh, wala xaraja fi kitaabatil quraan yi summa yumxaa wa yushrabu almaau allazi muxiya bihi alquraanu ida kaana alquraanu kutiba kitaabatan saxiatan bi ma in tahirin waaw dañu ne alxuraanul karim daal euh, may nañu jullit bu nekk maanaam mu xool ci ay aay yoo xam ne yi da koy bind euh, bu ko bindee daal di koy xooj ci am ndox maanaam mu door saafara mu di ko naan di naan loolu nga xam ne lii moom la def saafara dama doon aaya alxuraan mu bind ko eh, seeyal ko ci am ndox su fekkee ni nag alxuraan jooju ñu bind dafa nekk mbind moo xam ne bind mu wér a wér la jaxasewuñu ca dara lu bokkut ak alxuraanul karim wala boog lañ ca jaxase nekk lu dagan lekk nekk lu laab nekk loo xam ne li sharia nungu na moo ànd ak alxuraanul karim ne ne may nañ ko mu bind ko bu ko seelee ci ndox mi te ndox ma nekk ndox mu laab mu di ko naan waaye itam eh, dañ ne eh, jullit bi daal eh, dañoo bëggan moom ci boppam muy faj boppam bu fekkee ne mën na alxuraanul karim muy walla muy faj boppam daal muy fajoo ci loo xam ne lii sharia moo ko tëral walla mu xool fajkat boo xam ne bii jullit boo xam ne bii jullit xàqan la yàlla may ko xam-xam mu mën a faj fañ moo xam ne mii maanaam day dëppook sharia nga xam ne jëmm jooju di faj ab jullit la di dund ak jullit waaye di faj ci sharia maanaam di faj ci alxuraan ak sharia ak sunna ñu xam ko mu nekk koo xam ne kii euh, ab pas-pasa maanaam pas-pas bu wér a wér la bu dëggoo dëgg boo xam ne bii jullit xaqan la ñu ne bu ku mel noonu tamit képp koo xam ne kii da ngay sàkku di dem ci koo xam ne kii dañ ne day faj ku mel noonu yow jullit bi moom nga war a seet ba am ko dem ci moom maanaam mu di la faj foofu yi tamit li tax ñu koy wax di ko leeral mooy euh, ñooñ ñu naan ay jibar lañu maanaam ay seetkat lañu ay gisaanekat lañu euh, maanaam ab jullit da leen war a moytu bu baax a baax te bu ñuy xool moo ëpp ci sunu jamono ji nga xam ne jii moom la ñuy dund li ëpp ci suñu jamono ji daal ñi nga xam ne ñi dañ ne ay fajkat lañu doonu ñoo xam ne ñi maanaam ab jullit war naa dem ci ñoom euh, ñu di leen faj ndax euh, lañuy sukkandiku day wuuteeg pas-pasab diine lool day wuuteeg sharia lool day wuuteeg na lool su ko defee ñu mel noonu moom ab jullit warut dem ci ñoom maanaam ñu di leen defal leen loo xam ne ni wàllu faj la rawatina ñu naa dañ leen di seetal di leen wax ay yoo xam ne yii yu fàddu la yoo xam ne ñëwagut loolu moom charia da koy tere di ko moytuloo ab bu baax a baax a baax ndax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jullit bi de bu demee ci koo xam ne kii ab jibar maanaam day dañ ne day ñaan muy seet di wax ay yoo xam ne yu fàddu la ne boo demee ci moom rek maanaam euh, dem ko nga dem ci moom mu seetal la euh, ne ne boo ko gëmut maanaam lam la wax boo ko gëmut la wax moom Seydina Muhammad ne ne euh, di nga julli di nga jaamu yàlla ñeenti fukki guddi yoo xam ne yii jaamu yàlla googu duñ ko nungu yàlla nañ ci yàlla musal loolu la si Muhammad wax ne boo demee ci koo xam ne kii ab gisaanekat la ab jibar la koo xam ne kii day seet naa day wax ay yoo xam ne yu fàddu la maanaam nga dem ca moom euh, mu wax la yooyu maanaam euh, gëmoo ko te waaye dem nga ci moom ba pare ba seetloo ko ba mu wax la ne bu fekkee gëmoo lam la wax sax dinga toog di nga jaamu ñeent fukki gudd yoo xam ne sa jaamu yàlla kooku duñ ko nangu waaye nee sax boo gëmee lam la wax nag ba gëm ne kii li mu wax dëgg la te fekk la mu wax dara amu ci ci yëfi seytaane dong la ko teg nga ne su boobaa moom wala yaasu billaahi maanaam ne ne doonatoo ab jullit génn nga ci lislaam kon loolu dafa doon lu doy waar loo xam ne li lu jullit war a bàyyi xel la di ko sóorale bu baax a baax ba ñooñu nga xam ne ñi dañuy dem ci ñoom daal ñu seet ca ña nga xam ne ñi ay jullit lañu tey jëfandikoo alxuraanul karim ak charia di ca faj ndax lépp a ngi ci nekk alxuraan mën naa faj lépp mën a doon bu dee lu ñuy ñaan la ngir bëgg koo am bu dee lu baax la manees na ko ñaan ci alxuraan bu dee lees di muslu itam mas manees na ko mbuus muslu ci alxuraanul karim te am nañu ci yàlla defal ak ak leer ak ak xam-xam ñu mën caa ñaan bu baax a baax a baax kon mbokk mi li muy laaj daal ñu bëgg ko cee leeral muy wàllu lakk alxuraanul karim waaw dañ ne almushafu saalihu lil qiraati laa tuxraqu li xormatihi ne nañu ab kaamil alxuraanul karim daal su fekkee ni yàqu euh, maanam këyit ya xutte ko wut wala mbind ma yàqu mu doon alxuraan yoo xam ne ji baax na mënees na ko jàng maanaam këyit ya yàquwut ne dañuy bañ ñu lakk ko ngir ormaal ko maanaam dañuy bañ ku ko lakk ngir ñàkk lakk googu ñu ormaale ko ko waaye nag ne ne way ida uhriqa imtihaanan yakunu kufran indal jamii nee na nag kaamil bu mel noonu muy alxuraanul karim dara sikku ca nit ki xool rek ngir ne moom alxuraan da koy da koy doyadal maam da koy ñàkk teral da ko bëggut da koo neexut mu daal di koy lakk nee ne loolu moom ak wedd yàlla lay doon su boobaa ki xam ne kii daal dafa jël alxuraan lakk ko ngir tuutal alxuraan ngir doyadal alxuraan nee na ak weddi lay doon daa waaye nag wa in kaana almusxafu gayra saalihin lil xiraati ka an aw raaxuhu aw asaabaha talahu fala xaraja fi xarqihi siyaanatan lahu dana nag alxuraanul karim su fekkee ni dafa dem ba këyit yi yàqu maanaam këyit yi ba mën a seetu koo jàng wala këyit ya am lu yàqu ca mbind ma ba mbind ma mel ni dañ koo doon raaf ba mën a diisu koo jàng dal mën a seetu koo jariñoo ne su boobaa dinañ may nit ki manam mu lakk ko gas loole muy doom ba mu suul ko ngir euh, ñëwal alxuraan ngir ormal alxuraan ngir respecté alxuraan ngir teral alxuraan karim ne ne sax su demee ba tollu foofu muy dafa xotteeku ba mën a seetu koo jàng wala mu yàqu mu tooy ba mën a seetu koo jàng mbind ma jaxasoo ne ne sax lakk googu sax ñu koy def day dem ba nekk loo xam ne li kon day daal di war su fekkee ni amuñu neneen nuñ ko mën a def ngir man koo ñëwal kon dal lañ ne alxuraanul karim moom ñaari fànn yi rek lañ di ci wax ci wàllu lakk gi muy ki ko lakk moom ngir doy dal ko loolu moom lañ koy tere euh, ak weddi la waaye tamit bu demee ba mbind ma yàqu wala mu xotteku may nañu nit kii maanaam mu mën koo lakk ngir ormaal ko ñoŋal ko def ko ci béréb bu sell boo xam ne bii bu laab lay doon boo xam ne bii yaakaar na ne sobe du nekk di topp ca koom buñ ko bu ko suulee foofu nga xam ne fii fi la ko suul ginnaaw bi mu ko lakkee kon ngir ñu leeral ko rek ci lan mooy atteb suuroo alxuraanul karim ngir fajoo ko dañu naan loolu maanaam may nañ ko jullit bi su fekkee ni alxuraan dongu la wala lañu koy boole nekk lu sell lu laab loo xam ne lii sharia nangu na ko may nañ la nga bind aaya alxuraan lakk ko boole ko loole nga xam ne lii moom ngay fajoo suuroo ko ndax jéem ne nañu euh, lakk gi daggan na may mayees na ko ci anam géemu la waxam jëm lakk gi dagan na rek ne ne kon soo amee aay yoo xam ne yii dañ ne lii danga koy lakk suuroo ko su boobaa loolu may nañ la ko mën nga ko def boo ko dee boole dara na nekk loo xam ne lii lu laab la lu sell la loo xam ne lii sharia nungu na ko nga dog koo boole moom di ko suuroo ndax euh, lakk alxuraanul karim liñ ci tegtaloo mooy Seydina Ousmane bi nga xam ne bii dafa dajale alxuraanul karim def ko benn téere bi nga xam ne moom lañu ko def muy kaamil bi yeneen yeneen téere yi mbind ni yëpp muy alxuraanul karim yëpp dañu ko lakk ba mu des téere boobu mu xam ne moom la dajaleen muy téere bi muy mushaf bi di kaamil bi moo tasaaroo ci àdduna nii ba moom la jullit ñi yor di ko jàng kon jëm saxaaba yi dañoo dajaleen alxuraan jëm ginnaaw ba si Seydina Usmaan dajalee alxuraan def ko benn kaamil la ca nekkan ci ay kay lépp dañu ko lakk des euh, ba kaamil boobu moo dajale woon ne bii mooy bi bi wér ñu war a jàng muy bi ñu yor nii euh, ñu lakk la ca des yépp kon dañuy gis ne jéem lakk gi dagan na euh, te alxuraan dañ ciy faju te mën naa dem ba suuru googu mën cee am ne kon mënees na ko lakk di ko suuroo ngir di ko fajoo waaye nag bu fekkee ni danga koy lakk di ko suuroo bu fekkee ni nit la ko digal comme la mu waxaan fee rek na nga xool ba xam nit kooku maanaam ku wér a wér pas-pas la kuy dund charia la ku gëmm alxuraan la mu doon alxuraan kese kese joo xam ne ji moom lay doon wala lam cay boole su ko ca boolee yow sax yaa ko ci war a boole sa bopp gis ko xam ko la nga cay boole xam ne ni lu laab la lu sell la lu mën a ànd ak alxuraan la nga boole ko moom waaye sax nag dañu bañ nga sukkandiku ci rek nga dem ci nit mu ne la lii alxuraanul karim la juma boole nangam te loola ba mu ko def fekkewoo ko xamoo lu mu doon ngay def loola ngay jël loola di ko jëfandikoo kon daal liñ lay may ci ngir nga lakk ko di ko suuroo mooy nga xamal ko sa bopp xam ne aay bii kat bees ko lakkee suur ko mën naa faj dara nga defal ko sa bopp wala boo ko booleek dara waaye sax dañuy bañ sax nag nga dem cib sëriñ boo xam ne bii day ñaan maanaam mu ne lii alxuraan la juma boole nangam danga koy lakk suuroo ko te xamoo lam ca boole lu mu doon mën na laa wax ne la lu dagan la lu baax la lu laab la te fekk doonu ko kon daal loolu daal lañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax mu doon alxuraan kese joo xam ne ji alxuraan lay doon ju leer naññ waaye tamit buñ ci day boole dara yi tamit mu nekk lu sell lu laab loo xam ne lii euh, mën naa ànd alxuraan ñu dog laa mën a may nga mën koo lakk suuroo ko kon lakk alxuraan kooku muy wax daal euh, lu ñu mayee lu mën a nekk la ngir di ko fajoo yàlla ñu yàlla doole defal tawfiq bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi